ñu ngi fii ci am na ñoo ci ñoo ñoo xam ne ñu ngi fii suñu ginnaaw ñu nar leen a interroger nag ci yan anam lañ leen jàppee euh, ci yan anam lañ dundee arrestation bi biñ leen jàppee ba dugal leen biir prison est-ce que amoon na ay cas de torture naka lañ ko dundee ak tamit nag euh, biñ leen waxee li nga xam ne moom lañ leen teg comme tuume euh, tuuma nan naka lañ réagir ak tam biñ génnee ba dellu si naka lañ duggaatee si biir société bi ak yan mbëbët est-ce que ñu ngi waajal ay mbëbët ak ay jéego yoo xam ne dinañ mën a jàppale ñi nga xamantene ñom lañ bay ci prison ba pap nan lañ nara waxtanal fi ci bofa bayal wala ulay ni ko waxe nonu la mu melni kon euh, ñaari fa catégorie de personnes lañ fa wara interroger ñen ñi moy ñi nga xamantene euh, ñom ñoy ancien détenu ba bayot ñi jaaroon kaso ñu jot a euh, ku ci melni ni Moussa Djemé dinañ ko déglu mu wax ñu également li nga xamantene war nañ ko xam ku ci melni Mamadou Lamine Ba Djemé dinañ ko déglu Moussa Diédiou également dinañ ko déglu ñoñu ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy ancien détenu ba bayot yi nga xamantene téw nañ ci jotta bi xam nga ni heure bi bi heure la te góor mhm. yàlla yëpp ñu ëpp ci ñoom mhm. ña nga fële ca tool ya di liggéey mhm. bu weesoo ñooñu tamit eh, am na ñi nga xamante bu weesoo détenu yi ñu libéré am na détenu yu des ci prison bi ñoom également seen mbokk yi teew ci jotaay bi dinañu jël kàddu wax également ci yan anam lañ leen tege loxo ci yan condition la nekkee fële nga xamante moom mooy maison d'arrêt et de correction bu Ziguinchor su ko defee kon eh, xam naa jigéen ñi ñoo nar Roqe Jéeme dina ci bopp également moom moom mooy soxna ki nga xam ne moom mooy euh, Abdou Karim Sagna mhm. dinañu jox kàddu tamit euh, Awa Jéeme moom mooy euh, ki nga xamante ne moom mooy jabaru Abdou Sané mhm. Fatou Bintu Jéeme également bokk na ci ñu war a jël kàddu nekk soxna Faali Jéeme Yaama Jéeju également moom doom la ci ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Oumar Jéeju Khady Sané également teew na ci jotaay bi moom mooy soxna Arona Tombong Badji moom tamit euh, war na jël kàddu indil ñu ay leeral waaye tamit euh, soxna si nga xam ne moom mooy wuyoo ci turu Jaare Sané également bokk na ci moom sœur la ci ki nga xam ne moom mooy euh, Ibrahima Nafaw saane Adama Sané également bokk na ci ñi cewtu jotaay ji moom yaay la ci kookee nga xamante ñoom euh, mm. Mm. Euh, bi moom euh, la ci nga xam ne moom mooy kenn ci seex yi di Assane Badji Isabelle Diatta également teew bi ñu war koo jox kàddu moom mooy soxna mm. Jean Christophe Sané ak ñeneen ñoo xamante ne rek war nañu jokk si laata ñuy yëkkati jotaay bi ñooñu ñoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi war a jël kàddu ulay ah, dañuy dem rek ci jotaay bi nga xamante ne ñu ngi toog di ñu xaar ñu mën a waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne rek dundoon nañ ko ci ci yaa quatre ans de cela ak yenn euh, jéego lañ teg euh, depuis ñu génn pour mën a jàppale ñi nga xam ne rek ñoom lañ fa bàyyi kon euh, dañuy ànd ak sëñ rek dem waxtaan ak ñoom. ñuy jiitu rek ci imam ñu bàyyi ko mu présenté wu imam yow da nga bokk ci ñi nga xamante ne woon bi fii waa section de recherche ñëwi ak militaire yi da nga bokkoon ci ñu ñu jàpp te man jour vendredi dañ ma woon njëkk bi maa ngi woon dama tukki woon maa ngi woon Bignona ñu woom ma ne leen maa ngi Bignona ñu ne waa d'accord mu ne boo paree nga ñëw nekk naa foofu presque quelques jours ma dellu si ma ma ne xam kay maa ngi fii Toubacouta kon mm. yow bi fi fiy ñëw di jàpp nit ñi fekku fi woon. ci dëkk bi si guddi boobu. Mhm. déedéet fekkoon ma fa. dafa fekk nga tukki voilà. ñu woo la. ñu woo la ne la nga wuy si. waaw Ziguinchor. fii Ziguinchor. Mhm. mooy gendarmerie fii mhm. nee ma. dama ñëw. ñu woowaat encore jour boobu jour vendredi. ma ne ko waaw maa ngi fii fii Toubacouta. mu ne ma mun nga ñëw ma ne d'accord mais la. damay ut ku war jiite. ma jiite bo pare ma ñëw mm-hmm. mu ne kon nag mun nga nekk bo julle ba pare mm-hmm. nga mm-hmm. mana ma ne ko dedet xam nga ku lawo moo la mën na la damay wote sama rak mu ñëw jiti man ma ñëw non la demee tamit jahna yow dañ la ñëk convoquer nga dem fofu ñu wax ak yow après ñu bayyi la nga ñibisi dedet ah ok ce première convocation première convocation ma ngi woon ah ok daf ma won ci portable maa ngi woon Bignona mhm. mu ma boo dellu see nga ñëw wuy ma mhm. ma ñëw mhm. mu woowaat encore ah. ma ne ko maa fi ñëw na mu ma boo paree nga ñëw ma tey vendredi la man maa war jiite mu ma léegi da jiite ba pare nga ñëw ma ne déedéet comme ku lawoo moo damay woo sama rak mu ñëw jiiti man ma ñëw mhm. noon laa demee tamit mhm. jaan léegi ba nga fa yeggee euh, dañ la poser ay question wala da ngaa ñëw rek euh, ñu dugal la garde à vue dañ ma poser ay question mhm. waaw yan genre question dañ la doon poser bi nga ñëwee lu ñu dama ñëw toog jaakaro mu ne ma dafa toog xool ma xool ma ba si kanam mu ne ma imam Jame ma ne ko waaw man la mu lay tamit nootu tudd ma ne ko ma Lamine Fakeba Jame mu ne ma yow tamit lan moo la dugal si lii ma ne ko bal waaw man tamit dama ko laajte ma ne ban problème ban question mu ma déedéet problème bu am ba fa bàyyoot ma ko déedéet ñun de man ak sama nit yi village bi déedéet xamuñu lii par surtout man lii du sama liggéey sama liggéey mooy lan di jàngale ba yàlla def ne ma ñëw jiite si dëkk bi mhm. dëkk bi tam dama yore lépp si dëkk bi mhm. foofu la ñu commencé tàmbale di wax mhm. waaw. ci ñaata heure la la euh, ñaata heure la jël ci inter euh, question réponse bi. xool ma heure na nag mais nag yàgg na de. waaw bi mu la interroger ba pare. mu ne ma léegi comme loolu nga wax. mais est-ce que wóor na li nga wax ni am ma ne ko am dëkk bi xamuñu si dara xamuñu dara problème bi nag man lu may xam mooy nag suñu dëkk bi dama yore daayira si jigéen ñi maa ngi jàngale si dëkk bi kon nag lii musuma ko xalaat si dëkk bi surtout ma ne ko kon nag li nga ma waxee lii mu ñëwaat mu ne ñu ne Eh, da nga fekkee si réunion bi man ne réunion man façon réunion problème bu am boo fa bàyyat ma ne boobu ma ne ko déedéet amul mu wax ma yu bëri bëri ma ne ko déet man lu maa xam mooy li nga wax lépp musuma mm-hmm. xalaat euh, problème yooyu mm-hmm. kon nag nga laajte mm-hmm. naka ngay liggéey si dëkk bi pour islam bu mun yaatu. Mhm. mais à part ça déedéet xana nga sonal ma wax. Mhm. fofu lañ ñu ci la wax ji yam après ñu ne la dañ lay té garde à vue. ñu ne ma ah kon nak da nga tok nga xaar. Mhm. ma dem tok dama fekkoon fofu Samba Sagna ak euh, benen xalé Ousmane. ci ñaata jour lañ leen té bala ñu leen défé 3 jours. trois jours waaw leen déféré ci yan condition lañ leen déféré biir prison est-ce que sonno leen foofu ah, est-ce que amutoon ay cas de torture est-ce que balaa sax biir prison ci euh, interrogation pour ñu forcer leen ngeen wax né yeen ci ñooñu ngeen bok parce que il paraît que né dañ né réunion dafa amone ci liste bi ngeen bok. est-ce que yeen torture ñu leen forcer leen pour ngeen wax lool non man de. and ak kàddu yoy man de ana waxtan ni mhm. kenn wax ma lu xamné ne lu ma. lu lu ma metti. Mhm. parce que dóoru ñu la yuuxu ñu la déedéet yuuxu dañ laa posé rek ay question dañ ma posé question mhm. mu ne léegi imam da ngay toog nga xaar mhm. maa ko d' accord bi ñu leen defeeree ba ngeen dem prison noo leen ko dundee prison mhm. xam nga prison bon euh, na waaru li nga dund ki sa jaboot après nga nekk yow bu ne nga xalaat sa jaboot naka lay loolu kay métti loolu métti trop bi ngeen nekkee biir li ñu leen accusé Euh, chef d'accusation yi le na leen toog di mhm. parce que bu def pour ñu leen ay nit lan la def ci biir prison premier suñu mandé man. Mhm. suñu depuis ma si bi. Mhm. ñu parce que ñu ne ñii ay raykat la. Hmm. prisonnier yeneen dañu leen même garde yi. Hmm. bi njëkk bi. waaw ñu ay pour ñu jégué ñu problème la. ñen prison ngeen jotone ja fi j'ai un sort man fofu la dew ma Dakar fofu la nekkoon. waaw mais dañu tok tok ben we ñu xamné ñi nak lu ñu japp du nonu commencé di jégué ñu. Mhm. di tok di waxtaan. Mhm. bës bi leen woyé né dañ leen ni bayyi lan ngeen yek bës bobu mhm. man ma ngi yoon jangalé parce que man depuis ma dugg ci kasso bi mangi jangale jàngale. miner, nga faa mineur. Mhm. ak euh, quartier femme. Mhm. dañu am tamit daayra bu mag. Mhm. fofu lañu dé di jangale ma euh mineur. ci souba ci ngon ma jël sama ben moy Ablaye djéju ñu ñoo and di jangale mais mok day mujjé ci daayra bu mag ak ñeen ay prisonniers ñu bëre. ñu ñëw jangal bu ma bé pare. Mm-hmm. ñoom ñu jëm si daayira bu mag bi. Mm-hmm. loolu ci fi ngay jàngalee fa lañ la fekk ne la kaay wuy si bi nga ñëwee ñu ne dañ lay bàyyi ñu ne ma ah, wuy si dama ñëw ñu ne ma ah seen euh, bés bi jot na. Mm-hmm. ma ne lu xew ñu ne ma ah ñu ne yéen douze yéen dem. ma ne am ah, dama toog xalaat xalaat ma ne man naka laay demee ma bàyyi ñii. sama papa ñu fa ak sama rak yi ak mhm. sama doom yi mhm. naka lay demee ma bay ñi mhm. ñu ne ma ah déedéet sa bëss ak ñom bëssam du ben xeyna bu soobee balat yenen temps ñom tamit naa ñëw waaw biñ la bayé ba nga génn taxaw ci buntu prison bi lan nga ñëk xalaat lu may xalaat sama xalaat bi sa ci lan la njëkk dem lu may bàyyi si lu may bàyyi parce que dañu nekkon nek bu neex nekkoon bu baax

ak euh, Sané ak mhm. ñeneen ñi mhm. ma ne léegi mhm. xaaral ma woo sama doom ñoo yóbbuñu mais ñii ñu ne xaaral ñu dem utu faye occasion ñu mujj a ñëw man musa ak Moussa Diédio musa Moussa Diame mais xam nga 9 heures la ñu eggoon fi wala 10 heures mooy man def ma ñëw toog lu may toogee nii waa bi yëpp daw si ñu fekk mu si nekkoon naa foofu presque ba 11h ba minuit maa ngi si biti toog maa ngi si biti toog kii ñëw dem keneen kii ñëw dem mais sama xel bi dafa sori woon da nga sarak wala sa euh, doom jabaro daw si ñëw toog di jaale loolu daf ma metti trop ndax lu toge ak lu may dundee ak ñoom mm-hmm. ak ñaayal métti mm-hmm. na de ba léegi maa ngi xalaat bés bu nekk musuma dem fen mm-hmm. maa ngi nii toog ba léegi bu ñu ma def leneen gaw doog di mën a waaw mais actuellement mun ma def dara dara dara depuis ngeen génn est-ce que yéen ngi teg ay jéego yoo xamante ne pour mun a jàppale ña nga xamante ne ñoom ñoo pour ñu mun génn ay ñaan amuñu benn doole fii bu dul ñaan mm-hmm. ak ñi tamit ñu ñu bàyyoon fii lu ñu defoon si ñaan mm-hmm. loolu la ñu ñëw yokkaat encore mm-hmm. ñu def si ñaan si ñoom tamit ñu yàlla may leen ñu bàyyi leen lu sa dernier kaddu sama dernier kaddu mooy ñaan mooy suñu présent bi parce que moom moom lépp ak euh, juge ñu maye ñi ñu ñibbisi ko def boo ko gisee da nga xam kii def na mais ko xam ne kooku bo xam nga kii defu dara mhm. nga tooñ ko mhm. di ko teg quatre ans mhm. comme ñun lu ñu defee ñun noonu lii xam nga lan mooy lan noonu lii mooy toppeewu ñu leen dara defoo leen dara léegi maa ngi woon foofu quatre ans sama famille yàq na dafa tasaaru sama kër même boo demee léegi da nga xam ne lii nag il faut nga defaat ko naka laa koy defee k'a mangi a man k'i fen mhm. te te te même buma dohe fi bee boroo fay mhm. problème la parce que sama bu metti keroo demoon na si ki pour jaale ki dafa mhm. amone dej fofu la demone mais depuis ma de 3 jours musuma def dara munuma def dara ndax son ndax son kon ay ñi bu ñu tamit si problème bobu et puis ñu dara xam ñu tamit naka lañ koy téye ba léegi loolu nag metti na mhm. am ñu doole mais yàlla am na doole ñu ngi ñaan yàlla tamit mhm. lu ñu amee lu ñu amee xalaat bi ñu bay ñu mhm. xalaat boobu la ñu ñaan yàlla bay bàyyi leen ñoom tamit ñu ñëw si ku nekk mu ñëw toog si famille yow metti na de dama ñun surtout man depuis ma ñëw ba léegi musuma jiite fii musuma jiite parce que bu ma jiitee naka lay wax sama xel bi nekku fi damay xalaat bés bu ne kon na loolu métti na comme lu may duggee nii si biir mhm. toog ma jiite mënuma mhm. ko def parce que xel bi nag toogul loolu laa ñaan ñu may ñu ñun tamit ñu bàyyi leen ñu ñibbi mhm. defuñu dara bu ñu xamee man def ma dara ñoom tamit noonu parce que ñu ne ma noonu lii tamit noonu xam dara ku xamne dang ko tok si luñu wax ñu ne ñi wa àll ba dekk bi yepp ñu ngi fa la ñu nekkee àll ba Toubacouta nga duggee ni si ba ta da nga ko ta ñu ngi àll ba kon nak luñu ñaan moy yeen jappalé ñu di wax moy goor bi président bi mu may ñu mhm. dekk bi mu am mu ci si inshallah ñun de ñu ñu ñun la ñun ñu xam ne ñëw nañu am ñu xalaat am ñu pës boo xam ne tey da xalaat na lii laa war a def da sa sa eh, sarax jabaatoo mu ngi nii naka ngay koy doo ko doo ko mën a joxe dara xanaa moom mu ñëw jox la leneen encore. ñun dañu tëddoon ba ay 4 dégg sonnerie bi di sonné sonnerie kër gi ma ne ko ah yow am na am na kuy sone mu ne ma. dina nekk sama oncle daf ma waxoon de ni ma indi saako këriñ mooy Jean Baptiste Badji frère Maurice Badji euh, mais nee naa ko bu mu teel a indi kii bi këriñ bi parce que temps yi moom dëkk bi nu mu neexulee nii. mu teel a indi këriñ bi muy incité ma ne ko ah yow de sa oncle bi indiwu jàmm. kii nu mu sa sonore bi ma ne ko doo jog fu ma tëdd noonu di fekk mu ngi doon déglu RFI yaa ngi dégg léegi juste maa ngi nampal sama doom bi sama doom bi nga amoon deux mois ma ne ko yow doo dem ubbi fu mu sangoon woon mba mbanj bi bougé ma doon buggoon génne sama wen bu ma dem ubbi bunt bi ndegam insisté naa tel tellement mu mu daal jóg bu mu jógee juste mu dugg si salle de bain bi pour génn dem ubbi bunt bu mu duggee salle de bain daa fekkoon ñi est-ce que dañoo tëb miir bi gis nga tëb nañ miir bu ñu ubbi ñaari bunt yi léegi moom bu mu duggee si salle de bi mu yëkkati ni boppam mu gis mm, kii bi mbaxane kii waa casque euh, kii euh, gendarme mu ne ma ah gendarme dugg si na ma ne ko gendarme ma tëb si laat ma ne ko gendarme mu ne ma lool ma ne loo def mu ne ma xaaral ma dem ubbi leen ñu wax ma lan laa def juste ndega moom dem na pour ubbi euh, nu sax buntu principal bi ku moom ñii par ginnaaw man moom ku ma gis noonu salle par ginnaaw la buntu bu ci ginnaaw rek man na mu ubbi buntu bii rek kooku tima fetal mu puus ma ma daana Ousseynou ma ne ko waaye lan laa sama tiit bu mu lakkal ko joo maanaam lan lañ def moom bu mu demoon di ubbi fay buntu bi neen fan lañ ko daaneel ñu mënate ko léegi bu seulement y avait tellement de bruit xale yi yëpp yeew xale yi taxaw noonu ci kiib léegi juste kilote la soloon ak sous-vêtement bi euh, ma ne ma ne ko lan la mu ne ma xaar kii yéenul sax bàyyi la ñu dugg ñu dugg sama sama néeg bi ñu yulli yëpp la ñu yulli arme lépp la ñu yulli ma ne lañ mu ne ma arme la ñuy utti arme na wa mu ne waaw c'est juste papa moo ngi si néegam bi papa dafa AVC. dafa ti ma ba mu daanu si laaj bi mu di raam mu ne mu ne ma lu xew mu ne akuli lu xew ma ne ko ah, xaw ma léegi juste xale yi commencé di yuuxu di jooy mu ne leen da ngeen nekk di traumatiser samay doom yi da ngeen ñëw arrêté ma arrêté ngeen ma euh, nañ dem juste balaa ñuy dem ma ne leen non non taxaw leen vous vous êtes kii man da ngeen ñëw présenté woo leen man moo ko bu ñëwee lan laa leen di wax. Euh, commandant mu ne ma man madame boo bëggee xam nga jaar à la gendarmerie loolu la ma tontu ñu ko doon yóbbu ne ma ne non mënoo leen ko yóbbu nii comme ça. mu ci laa dugg ma dem jël tubéy bi euh, ma ne ko solal sa tubéy ngeen dem ci lañ euh, ci lañ ko yóbbu ñu dem bu ñu yóbbee noonu ma topp leen ci topp leen ci ginnaaw heure boobu de. Mhm. ma topp ci ginnaaw di daw. ma ma gis benn dama génn si mbedd bi gisuma ma ne ma dem ba si benn xale bi góor ma ne ko suñu koñ suñu koñ la dëkk ma ne ko ngir yàlla taalal sa moto bi nga yóbbu ma. ni lañ leen topp comme noonu nee na ma à la gendarmerie xaw ma ban gendarmerie la mu ne ndegam bu neema moo gën a jege nañ jaar bu neema bu ñu foofu bu neema effectivement fa la nekk ni man du ma ko mën a gis ma delluwaat mënu ma dellu ma toog foofu noonu ma xaar ba 11 bu ma toogee ba 11h ma dugg ma ne ko dama bëgg a gis sama jëkkër ñu ne ma mënoo koo gis ci laa dellu sa kii grand grand bi ma kañ dellu ba kër ga ci laa delluwaat ba kër ga mënu ma nàmpal sama doom keroog. noonu ba 15 heures ma delluwaat mu foofu noonu mu yóbbu ko añ mhm. bu ma eggee ñu ma tagal añ bi fii ci laa teg añ bi ñu ne ma mun nga ñibbi ma delluwaat ngoon yóbbu reer ma fekkaat mooy fi ma teg noonu bool bi fa laa ko fekkaat ma ne ko kon ñi xanaa lekkuñu mu ne ma madame tegal bool bi te nga yóbbu bi ma bàyyi fa reer bi yóbbu añ bi delluwaat bool añ bi le lendemain yóbbu ko ndékki ma fekkaat fa même bool bi mhm. muy bàyyi fa ndekki bi mu yóbbu bool bi delluwaat ba 15 heures. bool yi ngay tijji yëpp est-ce que fekk nga ñu lekk ko. lekkuñu ko man ma ni ma ko tegee noonu la noonu laa ko fekkaate. Mhm. ba 15 heures yaama sax moo ngi fi. Mhm. yaama kii nii fa laa ko fekk. Mhm. léegi ma toog ma ne ko gis nga commandant commandant fay la xaw ma lan. ma ne ko xaw ma lan lan laa lay wax. man en tout cas tey jii du ma fa buusi tant que xoom ma ndax sama jëkkër moo ngi dund wala dundul mhm. mu ne man du man du man maa leen di wax ñoom ñu la ñu war a def nekke man ni may wax ni may waxee noonu Rida moo ngi moo ngi tëju ni ñu koy tëj fële si si kii bi nu mu tudd sax si si ci biir si benn douche la mhm. yaa ngi ah, dégg cellule douche la mu en tout cas douche douche la ma wax mhm. yaa ngi dégg léegi mu ne ma fekk léegi moom dama nekkee du yuuxu noonu Rida mu ngi may dégg benn gendarme mu gis ma mu yërëm ma mu ne ma kaay mu ne ma nga ne yaay jabar ma ne ma mu ne ma dinaa la jàppale nga gis ko ci lañ ko génnee noonu mënatu ci ginnaaw ma ne ko yow bu mu génne mu taxaw nii buntu bi nii man ma toogee ma ne ko yow nga ne lu xew mu ne ma lenn laa lay wax dellu kër ga nga xoolal ma sama pap nga xool njaboot bi ma ne ko loolu mooy ban façon wax fekk mu jël doole ma ne ma ne ko loolu mooy ma loolu rek laa la mën a wax mu ne ma bu ma bu ma mënee ma indi ko mun tega may garab bi yoo ma may ko parce que yooyu fii ñu ngi koy ñu ngi koy rey gis nga ci laa dem ma ma ne ko d'accord ma dem indi kii bi dem jënd garab yooyu ñoo tegal ko foofu noonu. Mhm. nu mu ko ko tegee foofu si table noonu laa ko fekkaatee. jaawante naa depuis dimanche. ba mercredi. Mhm. li ma koy yóbbu noonu duñ ko jël duñ ko asaf la duñ ko ko jox noonu lay demee ma dellu si ba mercredi matin ndekki bi benn commandant mu ne ma sa palapan may indi kii yére. Mhm. nii yére nii kii ñoom lépp lu mu soxla ñu ngi ko koy jox fii. mu ne ma naa dem toog ma xaar. di mooy si si lundi bi laa gis René. fee euh, aux environs de quinze heures. ba le vingt le 19. bu ñu leen doon transféré. à la prison boobu laa ko gis. jeex na toog deux mois yi nga xamante ne teguma ko bët. mais yow day mel ni woon nañ la yow tamit euh, def la nga am benn interogation boo am ak ñoom loolu naka la demee film boobu. mardi la. parce que moom dimanche lañ ko àtte ba mardi. 17h ñu ñëw ña ma sama jëkkër moom moo ne naa dem. Mhm. bu ma àggee foofu noonu toog. moo toogee secrétariat sax la ñu kii la côté secrétaire buntu bi buntu secrétariat fa laa toogoon. moom moo ngoon ci ñu ngi koy doon entendre si benn salle may dégg baat bi di yuuxu di wax di wax di wax di wax ba mu paree ba 19h bu ñu paree pour génnee ko ci lañ ma dugal ci salle euh, secrétariat. yuuxu yi nga doon dégg yuuxu jooy la. yuuxu metti yuuxu ku ñu doon dóor wala ku ñu doon posé question. ku ñu doon posé question muy répondre. Mhm. gis nga. Mhm. léegi bu ñu bu ñu ko génnee ci salle bi ci lañ ma dugal ci salle moom bu mu nekkoon. Mhm. ñu tok y avait plein de kii nu sa de gendarme. kaa mhm. saal dafa fessone den ñu ñu ne ma tok ma tok ñu ne ma no tuddu ma jox leen sama tour euh yoyay kan ma wax leen ñu ne ma ñaata dom la am ma wax leen sa dom bu goor bi nu mu tuddu ma wax leen Atika ñu may indi ay problème mhm. ñu ne ma Atika Atika moy mana man Atika c'est comme nit mo le ne yow jamba ki bu la wo jambar ak yoy non mhm. mu ne ma ya man damay fen ma maa gën xam Atika lu muy tekke ma ne ko en tout cas man sama sama jëk lu ma wax article bi dëkkee loolu la len wax su de yéen ya, am ngeen yéen ya, beneen beneen signification atika mhm. ya, yéen a fa man man sama jëk lu ma wax loolu la kii loolu laa leen mhm. di wax ñu na ma euh ñu poser ma question sama jëk fa la nekkon ak jour bobu non ma ko ñu ñoo fa nekkoon jour théorie bi ma ko ñu ñoo ñu ñoo nekkon ma ko sama jëk moom moo waroon yóbbu ma dem école 10 mhm. heures la waroon dugg sama rak mo duggoon 8 heures léegi après ay 10 heures 10 heures moy mo sama jëk mu ne ko sa pa nga indi oto parce que euh suñu docteur bi nekk fa yaa ngi dégg sant santé laa doon kii laa doon def ci la foofu sama doom bi am deux mois mi mu wër ak wërantu si nii si koñ bi boo leen demee tey ji si Kanjalaan bi dinaa leen woon pa mooy kër fu mu nekkoon foofu noonu huit kii dix heures bu mu dix boobu noonu mu jógee foofu fekk xale bi mu ne law mu delloo si ko kër ga mu ne ma teel xale bi moom am na benn benn tournoi bu fa amoon koñ ba ci la dellu foofu si tournoi mu ànd si ak benn xale bu góor Assane lu tudd mu ñëw mu ne odet joxal kii jën du kii nu dulin ak noonu yëpp nañ dem tëgg regroupement ci la ci laa ko jox kii boobu mu delluwaat moom ak Assane ba si regroupement bi léegi sama bu mu paree añ mu ne ma otet bi pare na ci laa ko woo ma ne ko añ bi pare na mu ñëw ci lañ añ foofu kër ga ba pare fekk dom sërëm bi moo ñëwoon yendu faire 16 heures de la la ko doon delloo ah, parce que xale bi si yaayam bu mu delloo xale bi mu ñëw ba kër ga mu ànd ak sama rakk yi ñu dem si terrain bi seetaan football ci la déggee affaire c'était aux environs de 16 heures dem 17 heures lañ ñëw mu ne ma ndek ñun nuñ toogee ni lii moo am moom daal bi mbiri di xew mu ngi si seen biir di ay activité moo ngi kanjalan kanjalan mhm. suñu est-ce que moom xamante nag waa Toubacouta sa jëkkër dala daan tàgg souvent ne day ñëw Toubacouta déedéet am na amna na waa Toubacouta parce que moom waa Buroofa lañ mhm. xamante nañ entre ñoom fii ni kii ni mhm. waa xamante nañ mais fréquentation bëri woon na trop Toubacouta Toubacouta non non non non. moom waa boo fële la doon dem village am. Buroo Faay Buroo Faay. bu daan jógee Ziguinchor village am la daan seeti mais daan toon fréquenté fii Toubacouta. non non gis ki déedéet. Mhm. Mhm. Ah, yow kasa nga ko xamee. waaw dinañ ah, ok baax na léegi. tukaan mu nekk li nga xamante ne lu mu métti la. Mhm. ay waay surtout jour bi ma demoon pour retirer xaalis. parce que xaalis bu mu bàyyoon kër ga dafa jeexoon. comme xamoon naa mhm. numéro kii bi euh, compte bi mhm. ma jël carte bi ma dem directeur yi xaalis mhm. bu ma eh, duggee duggalee carte bi affaire bi ko ba trois fois carte dama insisté tellement que carte bi euh, gab bi mu lekk carte bi ñu ne ma pour ma yéeg ma dem gis directeur bi ci laa dugg euh, ci lañ ma yéegal ba si visite bi ci lañ ma yéegal ba si directeur bi mu ne ma ma tax mu ne ma toogal ma toog mu génnee benn lettre mu liir kii bi mu ne ma ah ñii ne lii lii laa fi jot dañoo si gelé kii compte mi lu mu doon wax noonu bu mu waxee noonu sama àdduna tukki muy wax dégluwuma ko sax man je me disais man man nal qu'est-ce que j'allais devenir mooy dundalee njaboot gi nan lay dundale sama njaboot nga xamante ne tey jii ne adduna bi bu amee problème o gis kenn gis nga ulay mhm. Atlantique ba Atlantique escale la nekk dama dox depuis 15 heures 15 heures laa fa demoon dama dox banque atlantique escale ba Kanjalang sentir ma sax maa ngi dox ma doon dox di waatu man lin la la def lundi la fekk ba dimanche lañ ko arrêté lundi vendredi ñu transféré ko à la prison lundi laa demoon pour retirer xaalis wala ma ñëw ma xool sama njaboot xaw ma lan laa leen wa kan moo may jox ma lekk man maa ngi nii du liggéey du dara. dama don def formation sama sama wa kër yi amuñu kan laa dem gis mais yalla reen dafa def li nga xamantene billahi ule ule bala nga xam ngeen jaar la ren du gis nit mu son mu gis keur gi ni mu xam ne mu xam ne kii dafa son mu yëkkati jox la tanto ko ñaan yaangi dek dégg no la nek heureusement yalla ak ak yom nit ñi am da nga jek jek mu nit mu la am walaay dama demone di jaay jën li nga xam musuma xalat sama na na jaay jën bañ na ko sa ba gisee nit biy jaay ci du maire dama kay jënd même si produit bi neewma mais dama kay jënd jàppale nit ci ya ngi dégg dama dem di jaay jën mi di ma delu sa ñoot alañ sama jen bu déssé ma sot ma ma ma glacé ko wala ma lak di jaayaat loolu yëpp dimbali sama njabot sil nan la ko defé lan moo am

léegi yow boo demee seeti René la lan la lay wax lan la lay dénk. premier jour ba ma gis René nii. Mhm. parce que toog na deux mois yoo xam ne teg ma ko bët. dama kaa gis ma ne ko René ça va. lu tax nga toog deux mois tegoo ko bët. parce que mënuñu kaa gis amuñu nee naa la euh, xam nga le 19 lañ ko trans vendredi mhm. samedi mu yóbbu ko añ. boo gisee pénitencier bi nu ma dàkkee. Mhm. parce que ñun dañoo ko ñu woo ñu ne ñu euh, pour ñu yóbbu ko añ. xaw sa da ngay da ngay bind ben ben ki ben ki ni etiquette ni si bi mhm. bu ñu eggee fofu am ben ben xale ko ma abal ma bind ko daño daño raam sama tour bi jot mhm. ma teg bol bi moo gis tan si nu mu yo kan mo indi bol bi ni marako ne ko ko man la ki ken waru indi dara fi ni yëkkati bol bi delu mhm. ma ko lan mo tax ñi ñi dugal sen sen sen añ mbok man duma duggal sama añ jëkkër mo ne ma du yow du yow la réponse mo war mo mën tontu naa dem tok naa yëkkat ba booli ma dem tok na deux mois yoo xam ne teguñu ko beut xawma ndax mo ngi dund xawma ndax mo ngi moo ngi mhm. sama dom bi euh, sama deuxième dom bi mhm. moom lay ci la rëcc ba rës ba day tok mu action action yu mel nonu day mhm. bala mu don tek ba papa mbeus day yu ko mu ne man sama papa ni lañ koy dañ koy ko comme ni ñi ré ki ni hmm. imagine toi yow ulay traumatisé sama doom yi ulay métti na terop métti na trop yow Oulaye nii laa ko dundee ba ma ko laajte premier jour bi ba ma ko gisee ma ne ko yow affaire bi noonu la demee Oulaye daf ma expliquer yi nga xamante ne mënu ma ko mënu ma la kaa wax xanaa moom wax la ko af mënu ma la kaa wax Oulaye nopp bi ba day toog di jékki-jékki di génne dëtt. dóor yi dañ koo dañ koo torturer foofu. dañ ko doon dóor foofu gendarmerie. Mhm. amul mu ne ma amul lu ma gisul. Mhm. amul lu ma gisul mais man. Euh, ling ma xam wax naa la man duma rebel wax la duma rey kat rene bañ nako ba du du rendi ginaar ulay du rendi ginar euh munema sama liggéey sama liggéey la don def ma li fekk ma fi de toutes les façons dinaa leen yi moy ay ki nga xamantene ne ay témoignage yi mu don def euh, mu mo doon ne euh, aje ki mu ne dam ka titre comme aje ou xam prémonition mhm. dafa melni dafa don xam dafa xam que lii nii dina dina ko doon fekk foofu livre moo ngi génne en janvier 2017 mhm. ñu jàpp ko 2018 mhm. lépp di di ngeen di ngeen gis témoignage lu mu def si kii bi si livre bi muñ mhm. bu ñu wàccee ñun c'est li am na lu xew ci foore bi ñun yëguñu ko ci faro bi ñu ngi foofu di di di góob di foo rek boo ah, boo ñu yónnee xale doom kële la ñu yónnee pour mu de wax ñu dëj bi ñun bu ñu egsee si dëkk bi si la ñuy soog egg affaire boobu. Mhm. waaye ñun bi ñu nekk ci far bi egu ñu woon loolu. sa jëkkër convocation lañ ko yóbbul wala déedéet moom ci guddi jooju lañ ko jàpp. Mhm. bi ñu ko na yéen a ngi nelaw. boobu ñu ngi nelaw. Mhm. dañoo ñëw rek fëgg buntu bi. suñu buntu bi dajee ko man mi maa njëkk a génne. mu ñëw taxaw si buntu bi rek fekk salle bi yëpp fees na. mu dugg dafa bëgg a dugg rek mu ne ma jógal foofu ci yoon bi fi ma taxaw mënu ma jóg. far far sama jëkkër génne bi mu génne ñu ne ko yow yaay c'est toi Abdou Karim Sagna mu ne leen waaw ñu ne ko dellul si biir mu dellu man fi ma toog maa ngi lox ñàkk tooy ba benn gendarme moo ma gis mu xam ne kii fu mu toog nii ba su ma ko bàyyee dina daanu moo ma puus mu ne ma demal toog si néeg xale yi foofu laa dem toog ñu nekk foofu ak sama jëkkër xaw ma lañ fa doon def bi ma bi mu génnee tas ma dugg ma fekk ñu tas si dëkk suñu lal bi yëpp suñu volis bi si sama beneen volis bi yëpp la ñu xotti. Mhm. tas foofu pukus bi ak léegi bi yëpp. boo gisee day mel ni néegu dof. Mhm. ñu yóbbu ko ak sama benn sama El Hadj Samba bu xaritam. Mhm. kooku njaago la mu ngi woon foofu. moom la ñu yóbbaale. waaw sa jëkkër boo ko seetee est-ce dina la wax ne moom dañ ko doon sonal si biir kaso bi ñu ngi koy torturer si ta bi. déedéet waxuma loolu de. nga loo xam ne am na ñoo xam ne ñoom dinañ wax ma am na ñoo xam ne duñu ñu wax. waaw mais mbaa depuis mu dem moo ak sa doom bi kan moo yoroon kër gi. man donc man maa yore woon kër gi. Mhm. bi muy demee ñun bu ñu ko génnee ñun dañoo génne di toog foofu di ëtt bi di jooy jooy jooy jooy ba ci yàgg ma séen ñu jógee ñi léegi sama doom sama caat bi naa ñaa ndekete sam papa kese dëkk bi yëpp la ñuy yóbbu ma ne anamu si laa a génn ci néeg bi ma ñoo xool ñuy yóbbu ñu leen di yóbbu fële waaw man sama néeg baa ngi foofu ba léegi sa caabi caabilaw bi lañu fay tëddee mhm. néeg bi lan ngay ñaan ci suuf Sénégal man li may ñaan mhm. ngir yàlla ak yonent bi mhm. ñu jàppale ñu ñu bàyyi leen xam nañ ne ñoom defuñu ko kay dañ leen tuumal defuñu ko ñu bàyyi leen waaw ku nekka dem nga dem toog ak sa njaboot njaboot gi sonn nañ waaw njaboot gi sonn na xoolal man ma man maay dang-dang su su may dem di leen seeti amoon na am na ñaari weer sax duñu lay dem waa kii waa Croix Rouge ñoo fi woon ñu wax ñu ko ñu wax leen ñun en tout cas ñun dañuy dem pour seeti suñu mbokk yi duñu leen gis moom moo ne tel bés ngeen fekk ma foofu ñun ñoo dem foofu ñun ñoo dem foofu ñu dem fekk ko foofu moom moo liggante jour yoo jour boobu ñun ñu demoon ñëpp ba ñu am ay kayit ñu soog a commencé def visite mbir mi bu mu xewé ci Allah bi mhm. xam nga mo man dama daan liggéey Ziguinchor mhm. jour boobu Ziguinchor laa fanaanoon mhm. ma xey ci suba si ma ñibbi kuta, ma ñew Toubacouta fekk amona na ay fan yu ñu demoon ci forêt bi dag bois du chauffe léegi jour bobu dama programme ak euh, yenen sama yenen, xarit rak parce que ñom fi ma daan dag banté ñom fofu lañu dag ñu jël charrette bi bu ñuy génne teg ci bant génne si ak moom léegi ñëw na si suba si dama ñëw rek futeeku sol sama tenue bi jël karasoor bi dem fu ñuy faral di dajee toog fa lu yàgg gisuma ñaari boo yooyu dellu dem seen kër ku ma gën a jegee ma ne ko ah, man maa ngi fii di leen xaar gisuma leen mu ne ma léegi may ma ma dem wooyi keneen kii mooy ab Aliou Aliou Sané nga booy bi bu mu demee dellu mu ñëw toog fii ni ba yàgg kii di tombong Aronas Badji ñëw fekk ma foofu noonu ma ne ko ñu ngi préparé pour dem ci àll bi mu ne ma déer man dama ñëwoon fii ni pour jël extrait doomi Djibril Sané bu ma nar a yónnee fële pour ñu defara ko ko benn copie ñaas ya ma ok su ma eggee dinaa wax booy ñu ñëw yaa ngi leen di xaar mais keneen ki bu mu demee nee na moom bu mu fa eggee mu wax moromam ki kii mu ñuy xaar fële mu ne moom yaramam dafa diis moom du mun a dem si bi ba lu landin ma saane jël velom ñëw ba fekk ma foofu fi ma toog noonu mu ne ma koy xaar ma ko booy laay xaar mu ne ma kon maa ngi leen di mu ne ma ko ok Landing dem na deful 30 minutes sax defu ko à peine minutes mu dellu ñëw fekk ma fi ma toogoon fu ma bayoon ma ne ko kon lu xew mu ne ma ah man daje naa ko benn waay mu ngi daw ak ay daw yu métti waa jooju xam na ko mu laaj ko mu woo ko medul medul looy daw looy daw mu ne ko déedéet gaa yi gaa yi gaa yi taxawul sax moom mu dëpp foofu la ma ñëw fekk léegi comme que am na ku ma ne ni ki am na lu xew si àll bi kon jaru may dem mhm. noonu laa dëpp dem gaare carrefour bi. simi sama teni bi sol sama teni bi sama yére yi ma tëdd nelaw ba ay 14 ma yeew bi ma yeewee ñëw toog siron ron mango bi sama mag kuy Ibou Nafour saane ñëw fekk ma foofu ne ma a ah, am nañu dëj suñu paa bu dëkk fële ñaf leen ku ñu naan fan jeeju ku ñu yóbboon fële pour faju ji mangu leen dafa de ma ne ko ah bon mu ne ma waaw mu ne ma maa dem foofu ma ne ko kon jiitu ma parce que kanam dinaa ñëw nekk fii nekk fii ba ay 16h ma dem foofu ma dem ma fekk fa waa dëkk bi yëpp ñu toog toog régler ñu war a régler comme njaboot baa ngi fii jabaram mooy fii il faut ñu def lépp pour ñu yóbbu njaboot ji mangu leen parce que rob ji du même jour lañ koy rob lendemain lañ koy rob si loolu ñu nekkoon foofu ba ay 17 dix-huit heures moins suñu mbokk yi nekk si biti commencé di woote di ñuy laaj mais yéen lu xeexoon ci biir àll bi nu mu demee mbaa suñuy doom yi nekkuñu fa wala bokkuñu ñu ne leen déedéet ñu ñëpp ñu ngi fii nii si dëj bi dëj moo am foofu lañu nekk ñun foofu la commencé di am information boobu boobu foofu la ko jëlee ci loolu comme que damay faral di dem di liggéey delluwaat naa Ziguinchor bi ma ñëwee sama mag ku yaaya saane dem ci yàlla ñëw ne ma ah, ñu dëkk bi baaxul ma ne ko lu xew mu ne ma de tey ay 4 di du matin jëm 5 am na ñu fiy dugg ay militaire ay gendarme jot nañu teg loxo loxo si ci ñu bëri fii nii défoncé bunte yëpp fekk leen ci biir néeg yi ñu génne leen dañu leen yóbbu. ma ko ah bon mu ne ma waaw noonu laa delluwee si biir ma delluwee si biir ma gën mu ne ma déedéet bul dem fu mu toll nii militaires yi ñu ngi si dëkk bi ma ne leen man loolu faalewu ma ko damay dugg si dëkk bi xam lan moo xew kanakan moo fi newul nu laa jëlee yoon bi ñëwee noonu noonu def nii ba ñaf lan ni ma ñëw seen naa ay militaire côté bële si tali bii nii man ma continuer dem ba foofu noonu ma dellu ma ñëw ma ne ko kon li nga wax dëgg la côté ba lépp am na ñu jotal teg loxo yóbbu nañu leen léegi ma toog ay jour ma dëgg ñeneen ñi ay téléphone lañ leen woo ñu dem uyu bu ñu demee comme sama mag Ibou Sané ba mu demee dellu siwul parce que damaa ñëw ma laaj jabar mu ne ma ah, kii dem na ba léegi dellu siwul ma sama téléphone ay plus de vingt appels téléphone bi day sonné ba mu dem boîte vocale kenn jëlul loolu la tooge ma ne kii moom xam naa ne que du dellu si ma toog la lendemain sama mag benn bi Yaaya Sané ma ñëwee mu ne ma ah jot na fii ay convocation ma ne ko ay convocation mu ne ma waaw pour ñan mu jox ma ma liir

na naka nga doon dëfalee ñi nga xamante ne ñoo nekk si village bi pour euh, xam nga euh, xel mi xel yi bañ a dem. non dëkk bi sax boo fi duggee si da nga da ngay xam ni kii am na lu xew si dëkk bi maanaam dafa mel ni majorité dëkk bi la ñu yóbbu dañoo wéet si dëkk bi dañoo wéet nooy doxee doxee si biir dëkk bi du la saf dara du la saf si dëkk bi. ay xarit yi ngay faral di ànd ngay faral di waxtaan ñooñu ñëpp yóbbu nañu leen ak kan ngay nekkal fii nii métti na. village voisin yi daanuñu leen woon ragal est-ce que ñi doon ñëw di def si seen commerce fii dañ fi daan ñëw ba léegi est-ce que euh, amul benn. <laughs> damay jël benn exemple man daanoon naa liggéey Ziguinchor sama premier jour bi ma demee bu mu ñëwee bu ñu wonee gars yi si télé bi. fi ma daan liggéey benn xale bi jigéen jóg naan xoolal rebelle yi ñu ree nit ñi si àll bi xamul ni ki man fii laa dëkk mais ki ma fa moom xam na ni ki man waa Toubacouta la mu bàyyi ko mu wax ba mu pare kooku ne ko sooy wax da xalaat doo gis parce que nee nañu nii ay ñii ay rebelle lañu léegi yow tamit il nga topp leen nga wax loolu mu ne ko est-ce que xam nga saane mi toog waa fan la xale bu jigéen gestu ma xool ma mu ne ma ban saane ma ne ko mu saane mii toog mu ko saane mii mooy chef de village dëkk bi ngay wax ni xale bu jigéen bu mu duggee ci place am léegi boo demee Ziguinchor bëgg a ñëw Toubacouta pour nga am Jakarta wala pour nga am oto boo nee Toubacouta ñibbiwoo nit ñi fu ñu dajee boo nee ni ki man Toubacouta laa dëkk dañu lay ay bët yoo xamante yow sax da ngay tiit da ngay ruus parce que fan lañ la tegee ay reykat lañu loolu nekk ñu si nekku si ñun nous sommes bien éduqués dañu am yar dañu am yërmande ñu ñu rey si àll bi suñu ay xarit lañu ñu bëri ci si kër yi la ñuy fanaan di añee bu ñu ñëwee pour liggéey am na ay kër boo xamante ne ñom ñuko yékal mu añ koku mën nga am fit dem fekk alabi ci alla bi nga rey ko pour lan ban jëriñ nga ci am dañu dund dund bo xamantene bu metti bu metti yombul de Tol mu toll ni lan ngeen ni ñaan nguur gi ñun de ak justice wa Kéwoulo def nañu fi ay interview A onuyon nañ fi mhm. pruujapa leñu o mwaas un gurgi mhm. deganu, wala adu na bi puñ daguñu Men ñu mhm. te sunñu sanyon nun ñangurbu Senegal Gobu Senegal, sirtu préda ma kial akjistison nañu libereñ. ñii defuñu dara ñu ñii defuñu dara sañ naa ko wax ñu ñuy toog ma mii toog nii jàpp nañu ma ay yoon yoon ci biir àll bi dóoru moom sant naa yàlla mais dañuy mbërëwloo ba ku nekk sa yaram tas laa wax nii. mooy ñi rebelle yi. rebelle yi si biir àll bi. yow boo daan uti matt jàpp man mii sama bopp. Mhm. mbëri naa ci biir àll bi ñu am ñu jàpp fii nii maanaam dañu amoon nawetaan lañu ñëwoon pour préparer comme que suñu kees association bi amul xaalis jeunes yi wuñ ñu ne dañu dem uti mat pour ñu mun a renforcer kees bi jeunesse bi dugg ci biir àll bi àll bi mel ni am na ku leen woo ne leen ni ki am na ñu dugg si àll bi jeunesse bi tubaab dugg nañ si àll bi ñoom um fali père de famille fal demee ko ñu wax si kaso bi. père de famille la naa ci jeunesse jeunes yooyu ñu duggoon si ala bi pour automat yi. bokk na ci événement boobu. dañu leen simi yaram nen kanam doomam kanam ay doomam yaram nen set bi sol doo sol slip sax même loxo boo defee nii rek dañuy dóor loxo yi ba ñu ñu tee leen bés si suba ba dañu leen dóor ba ñu yàq seen yaram yëpp. rey rek lañ leen deful. rey lañu leen deful mais ñu bëree bu ñu génnee. Mhm. ñu def dara. ay yoon yoon ñu ngi koy def ci biir àll bi léegi yow noo munee imaginer ñun tey ñu jël ay armes ñu dugg ci biir àll bi di dem kar foofu ay nit ñuy jógee Ziguinchor dem di uti mat ñu rey leen pour lan. ndax yéen seen bopp da ngeen di subir loolu. dañ koy subir. balaa nga jóge si sax sa fit day naan tëf tëf bala ngay dugg si foora bi danga ñëw ba nga nga dépassé position militaire yi à cent ñu ngi foofu. mais xanaa ñoom militaire yi ne loolu daloon nañ leen à cent mètres seen seen base. ñu ko yëgee ñu ngi fii toog seen base yi da ñëw ñu ne kenn ki moo leen yóbbu si biir ngeen dem fi seen xarit yi foofu noonu. ba ñu xam ni fi mu toll nii

mais xam nga les faits bu ñu amee. su su amulee koo xamante dafa rëcc si biir ala bi. ñëw signalé. ñoom duñ ci jëg dara. léegi ñoom bu ñu leen ko signalé lan mooy si nekk seen première réaction. bon xam nga bu ñu nekkee ci loxo éléments yi ñoom foofu amuñu benn doole. léegi xanaa rali bi rali bi la ñuy woote fële Ziguinchor. muy dem dañu leen di gis mais duñu leen mën a def dara parce que ñu ngi seen loxo. jigen dañu leen di téye fofu dañu def ñene ñu bëré sax. ay dóor bëré entre sen biir. waaw ay dóor. soit ay góor bu ñu ak ay jigen ñu dem ba fofu noonu ñu tee ñu teelee ñu leen ah da ngeen nité dak jigen bobu waaw mais gaay ah yalla mo leen jappalé dañu né déedéet ñun lolu dafa xaraam ci ñun ñi suñu ay rak lañu. mu ñu tëdd ak ñoom ñooñu. xanaa fi ngeen di utee matt dafa sori lool ci eh, camp bi ba waral ne amul sécurité foofu. bon maanaam léegi booy dem pour uti ndaamaraas. Mhm. bi nga njëkk a dugg. Mhm. ndaamaraas ñoom si ginnaaw forêt bi. Mhm. foofu militaire duñ fa dem. militaire kon ñoom lan mooy seen rôle fii ñu nekk nii. bon militaire yi ah ñoom ñu ngi fii pour sécurité population yi. mais maanaam nit ñi bu ñu demee. du ñu topp nit ñi. parce que bu ñu toppee nit ñi tamit foofu tamit ah, encore benn problème la lay doon suñu dajee ak nit ñële mën nañu doorante fekk civil ñu ngi foofu beneen perte lay andi encore de préférence yàlla bu dogalee nit rëcc foofu noonu mu ñëw mu wax leen ni kii ah lii moo xew si àll bi. léegi jigéen yooyu nga xamante ne loolu daf leen di dal ci biir àll bi. Mm-hmm. ñu ñuy dóor wala ñu ñuy violer des fois ñoom bu ñu fa génnee ban assistance lañ lañ lañ leen.

suma ma problème ma ñew suma amé problème ma ñew je ko défé ba bi buma rek. nga daw la da soit nga madame ah fi, génn ci biir. parce que là la surcharge la dafa 10 parce que am nga préoccupation préoccupation.